mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi fii eh, ci barab bu tedd bi barab bi moom ki mooy xaritu ñëpp ki moo doon xaritu senegal ki moo doon xaritu àdduna ki moo doon xaritu suñu boroom ki moo doon xaritu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bés bi nga xamante ni moom la ñuy woote fii ci Tiwaawoon moom mooy kan maam Abdoul Aziz Sy ñu naan ko Dabakh Malick xaritu ñëpp a ngi nii bu réew mi nekkee ci ay situation booy xool. kàddoom dañu koy faral di yëkkatiwaat saa su nekk si tele yi si rajo yi si internet yi presque écrite bi booy xool dañuy dañuy bind ay kàddoom yoo xam ne yàgg na ko di yëkkati te fi mu nekk nii soxla nañ ko kon barab yëpp tijji nañ ko ñaari at a ngi nii nit ñi namoon lii ñëw di ziar si léegi nag am na ñoo xam ñu ngi ñëw ziar si seen xarit di eh, xaritu ñëpp xaritu àdduna ah amul amul amul xàjj ak seen muy jullit beeg. chrétien beeg ñëpp ñëpp ñëpp ko booloo boole woon bëgg léegi nag nit ñi namoon nañ ko ñëwoon fii ñëw ziar ko tàllal seen loxo di sàkku ñaan ci moom ci barkeem euh, yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp julli nañ ngee ba nopp ñu bàyyi gars yi ziar ñu am ñoo xamante ni ay xaritu ku tedd kii lañ maam Abdoul Aziz baax Malick ngeen yéene seen ñaan rek ndaxte moom loo boo tàllalee say loxo rek euh, ci barkeem rek suñu borom incha allahu rabbi dana ko def ñu ngi la fekk suñu maam. Mm-hmm. ki mooy xaritu ñëpp lan nga seq ak ñoom. Alaaji Abdu waaw li nekkoon suñu sëriñu suñu sëriñu parent mm-hmm. suñu parent xamal ñi ko. dañuy mm-hmm. daan indi fii. wax dëgg yàlla mais bërit bi moom bu ñu fi toogee dañuy yëg lu bari. wax dëgg yàlla. waaw dañuy yëg ne nit daal àdduna jarul diisal quoi. parce que ko oyof la boo fi ñëwee rek xam ko. parce que macha allah lépp loo xamante naa daal ñu ngi fiy ñaan moom. yàlla ngi gis nañ ñu ngi siy def taw yàlla ngi siy def taw féex waaw macha allah daal di fi wax daal euh, fekkee nañ ko ren yan nañ ko fekkee déwén ci barke yonent bi waaw gëjoon naa fi deux ans na moon nañ ko nag. bi lan bi nga jàkkaarloo ko euh, lu rafet lii. ku mhm. tedd waaw kontaan rek. waaw kontaan rek. Alaaji Abdou moom Alaaji Abdou ñëpp la. Mm. parce que dama koy wax tout le temps ma ne secret bi si yàlla def mooy que ne moom xatalutoon kenn moo tam réew bi tam boo ñëwee dafa da ngay gis wax dëgg yàlla macha allah chaque année nag nii lay demee waaw loolu daal wax ji xam naa mënewuñ ko mais sant yàlla bu baax daal. asalaamaaleykum maaleykum salaam. waaw euh, ziar nga. waaw ah. mhm, la wala sama xarit. xarit la. sa xarit la sama xarit la. est sama xarit la sama royukaay la. Uh-huh. waaw sama sama wasila la. waaw def na ci man lu bari. Mm-hmm. Tivaouane saa bu ma fi duggee si jëmmam rek damay yëg lu bari waaw à cause de toi waaw yëg naa lu bari sentir naa lu bari ci sama yaram torop kii moom bu fi duggee rek lu ne lu ne lay yëg eh. mhm, lu ne lay sentir waaw ñaan naa lépp ñaan naa lépp eh. waaw lépp ñaanal jullit yëpp eh. mhm. trop namoon naa ko trop daaw ñëw naa fi mais mënu ma ñëw ci raw bi parce que tëjuwuñu ko dañ ko tëjoon mais gàmmu naa si jëmmam tamit waaw bi may ñëw tamit yéene waale naa ci que su ma ñëwee tamit si jëmmam laa ñëw hmm. teewee ngir sëñ Babacar si mais pour suba laa gàmmoo daaw incha allah. ñu ngi ci tay barab bu tedd bi maam Abdou foog naa ne namoon ngeen ko ñaari at ñëw leen. dëgg la waaw dëgg la day wax asalaamaaleykum dañuy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ni dañoo kontaan. ndaxte lii dañ koo namoon taalibe cheikh yëpp wax dëgg yàlla namoon nañu gàmmu yàkkamti woon ko lool moo tax ren ji macha allah boo xoolee Tiwaawan ni mu mel nga xamante ni xol yi dafa sedd te ñëpp yëg nañ loo xamante ni lu ñu gëjoon def la lu ñu bëggoon la lu ñu namoon la macha allah ñu ñaan yàlla ñu fekke ko yàlla nañ ko fekke ay at yu baree baree baree bare yoon bi metti na embouteillage nit ñi bari na mais dafa mel ni ki nit ñi ci lañ gën a mën a dogu pour ñëw fi waaw sëñ bi parce que xam nga loo xamante ni ci xol la nekk ñun ñuy ay taalibe cheikh di ñaan yàlla ñu yàlla def ñu dëgg-dëgg taalibe cheikh rey ñu rey ñu ci dekkal ñu ci euh, ñoo xamante ni lii dañ koo yàggoon a rêvé di taalibe cheikh moom bu gàmm teroo du meer sax. Mm. day kontaan foo ko gis day ree ndax yàkkamtee ñëw Tiwaawan dëkk bu sell bii. di ñaanal yàlla sunu xalifa bi yàlla na fi yàgg lool lool si Malick te wér di ko ñaanal yàlla lii mu sumb ci liggéeyu maamam bi yàlla may ko mu yeggale ko bu mu julli ci ay ati at at yu baree baree bari bari ñëw ziar si maam Abdou mooy xaritu àdduna bi nga ñëwee tey fekk ñu ubbi barabam nga ñëw di ko ziar si yëg-yëg bi lan xol bu sedd xol bu sedd macha allah yàlla nañ yàlla tas ci barkeem euh, mooy maam Abdou Aziz Dabakh ñun fekkee nañ jamonoom xam nga Serigne baa Sy da daan wax xale yi judd ci ginnaaw mbay gisuñu mbay te mbay lu ñu koo ci waxal moo mooy maamam waaye ñun yàlla dafa def ñu fekkee ma Abdou xamoon ko bu baax xam ko ci mbaax xam ko ci boole ay mbokk xam ko ci lu baree baree bare daal euh, dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla taas ñu ci barkeem ci barke yonent bi sallallahu alayhi jamono tey jamono ji bëri nañu dëkk bi dafay soxla présence dañ naan ay bu fi nekk ay bu fi nekkoon Maabdou ku ñu xam ne bu yëngu bi bu dëkk bi yëngoo bu ñu tegee kasetam mu daal di réglé bu dëkk bi yëngoo bu ñu tegee ay kasetam rek dëkk bi daal di réglé ci saa si loolu loo ko yàlla mayoon vidéo am seetla ñëpp seet ñëpp jënd glace toog ñëpp day da ngay da ngay da ngay jënd glace macha allah yàlla defaloon ko loolu parce que moom yàlla da ko mayoon macha allah moo xamante ni dafa daan wax sama sama sama yàpp yaram dafa sama deret ak sama kii dafa jaxasoog Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag moo tax yàlla ma yoon ko kàddu boo xamante ni bu nee dama ne rek Sénégal gépp déglu ko ñu koy jooy bu baax te noppeeguñu waaye nag mi ngi fi ndaxte bu ñu seetaanee ay kasetam dañuy delloo siwaat di ko ñaanal yàlla bu baax rek di ko ñaanal yàlla yàlla taas ñu ci barkeem ci barke yonent bi bismillah ñu ngi lay ziar naka coono yi jibi jibi li jibi li fan nga bàyyi ko géejawaay waaw waaw ah, yaa ngi dëkk fu neex waaw waaw géejawaay foo nga dëkk foo dëkk yow ah, man fi mi laa dëkkoon fi mi ah. maa ngi maa ngi fi mi tëri bi rek man maa ngi dëkk Enda la 38 fi mi chaque jour fa laay fréquenté tey suñu ngeen seet si woon waaw waaw góor gi waaw waaw góor gi de moom moom yàllaa ko baaxal rek waaw mm-hmm. moom moom yàlla suñu yàlla baaxal la bokk mm-hmm. Sénégal daanaka bëri na nit génn àdduna ñu doon na ko mm-hmm. waaye moom avant ñu muy avant muy génn àdduna la def testament am hmm. waaw waaw busraaku mu yaa man suuru xat wala tumoo si lal xilaafati mawlidi jam haani maanaam waaw mu ne xilaafa yi Sëriñ Mansour jox nañ la ko si ndigalal mag ñi ñett ñett fan lañ si teg hmm. alal bala alxamis aljuma samedi mu gaañu dimanche ñu denc ko fii kooku mooy Alaaji Abdu ñëpp ko bëgg déedéet parce que non non xam nga lu ko waral hmm. moom dafa jëloon intérêt am suul boo bëggee nit ñi bëgg la da nga jël si intérêt gas suul waaye bu dee yaa ngi gis si intérêt may gis sama intérêt rek du nekk. kon loolu royukaay la si jamono. waaw waaw parce que loolu looloo jafe parce que lu ñu sonnal mooy ku nekk intérêt am xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko mos a tibbal dañ a tibbal euh, reer moom yonent bi reer bu baax Jibril moo ko tibbal yonent bi xool reer bi ne reer bi du ma ko lekk yóbbu ko Abu Bakarin Sadiq Abu Bakarin Sadiq ne reer bii du ko lekk yóbbul ko Seydina Omar Seydina Omar ne ko reer bii du ma ko lekk yóbbul Seydina Ousmane Seydina Ousmane ne reer bii du ma ko lekk dama koy yóbbul Seydina Alin Seydina Alin woo Faatumata Bintu ne ko reer bii moom nu mu mel nii man du ma ko lekk dañ koy jël Assane Iseynu yóbbul Seydina Mouhamed ñu bokk reer ko bañ ko ëndee Seydina Mouhamed ne ko fi mu jugee mu nettali mu ne ko woowil kooku mu ñëw ba jaar fi mu jaaroon lépp andi mu ne ko lu ma bëggoon lu ma bëggoon si yéen ñor na moo tax ñuy wax waatasimu bi ablillahi jamian wala tafarraqu waaw waatasimu bi ablillahi jamian wala tafarraqu laa tadxulul jannata hattaa tu'minu wala tu kenn di nga yéene sa bopp yeeg yow li nga yéene sa bopp yéene ma ko wala nga yéene lu ko raw kii nag noonu la dundee woon ba mel nii moo tax gis nga ba tey tey boo nee Alaaji Abdou yeeg chrétien juif murit xaadir laayeen ku nekk nee na moo ko moom te dëgg la daawul wax mukk ngir intérêt boppam waaw ah, looloo tax moom am li mu am kon yàlla na yàlla tax ñu si barke moo tax ba rek góor li ñuy tëjee mooy que ne ah. kii li mu waxee nii boo leen seetloo ñetti jeunes ñoo ñëw taxaw te ñetti jeunes yooyu noonu ñoo ñëw ci barab bu tedd bii nga xam ne nañ xaritu ñëpp la j'ai euh, dama dama dama ko def noonu jël ay jeunes pour jéem a réveiller un peu encore la conscience de la jeunesse nañ leen topp diine gi nañ leen topp njàngale mag ñi di topp ci loolu moo gën ñuy nekk ci yeneen yeneen ak yeneen ak yeneen parce que avenir bi xale yi la soxla te nee nañ diine gi xale la soxla. waaw mais parce xaarul nga dem ba nekk mag. door a ñëw. parce que xam nga même tey tey li muy sport loo gis àdduna. xale lañ soxla. mais parce que yow boo nekkee xale formé woo mais boo demee ba nekk mag doo formé mm-hmm. mais jumaa yi ngay gis wala muy am xeex wala dara. Mm-hmm. mais daf fekk ña fa nekk si xamuñu diine. ñoo dem ba nekk mag yeeg jël retraite dem si jumaa ji. maanaam boo dee football jaaroo école football mais loolu loo gis rek noonu la boo gisee ñuy wax ni entraînement. Mm. wala équipe bi dugg nañu dugg nañu dugg nañu wala ñu ngi préparé mais loolu lay firi noo mm-hmm. wax nii xale yi ñooy nekk ji mag mm-hmm. léegi xale yi bu ñu leen formé mais bu yàggee bu nekkee mag ay jaaxit la ñuy nekk ku ñëw ndax leen lu ñu ngelaw bu ñëw yóbbu leen nga gis bopp def ko tuxu yàmba wala sàngara wala bopp si li nga xam ne dala jaru ko mm-hmm. nga gis nit judd fu baax mais problème bi mooy ñàkk xam fi ngay teg sa tànk ñu ngi gis ne tamit euh, ndaw ñi ñu ngi commencé di a fonk diine gi bu baax ñii ñu ngi jël wérd ñii ñu ngi yoonu Tuuba ñii ñu ngi yoonu fee ñii ñu yoonu fee am ñu leen di gindi ku ci mel ni kii ñenn suñu ay kilifa boroom daaru maam Thierno Birahim li ngay def ci ndaw ñi gis nañ ko gënal jàppale xale yi bu baax a baax a a baax oh. njaboot gi tamit fii nii njabootu Seydi Hadji Malick gis ngeen ngeen di def ndaw ñi di leen tàggat bu ñu xoolee burdu bi fukki fanam burdu yi xale yi nga xaman doon nañ ci def ay waxtaan macha allah sëñ bi kon asalaamaaleykum wa xam nga maam Thierno Birahim ni mu mel noonu la wala mel mm. parce que maam Thierno sëñ Touba muy dem mm. maam la la bàyyoon xale yi moo tax sëñ Fall doon wax maam Thierno moo ñu jàngal bañ ne ar hmm. yar nu bañ yar parce que mook sëñ ak ma sëñ Massamba ñoo bokk pap kon moom bu nii mu wala mel di jàppale xale yi noonu la ba fu ne waay nekk yeeg boo nekk góorgóorlu nga gérer fa waaw man parce que sëñ Abdou Karim Touba seen mu dëkk fi mi sama nijaay la ah, waaw waaw <laughs> jaajëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah jaa jëf